man yëg-yëg bi ma ci am ak taxawaay bi moom la nit ku nekk war a am mooy maanaam comme ni ñuy waxee ah ay terrorisme ak yenn yu bon yi mu ngi dox di jëm suñu réew noonu la démocratie war a doxee jëm ci suñuy réew tas si yeneen réew pour que nit ku nekk mën a xam ne man de sama sañ def fii lay commencé sañ defu kële fële la commencé fii la tàmbale ak fii lay yem parce que nit ku nekk boo buggee sa ak ak yelleef boo buggee ñu fonk ko da fonk ak ak yelleefu kenn té pour ñu dëkk ci lo xamantene ne ji ñun ñëpp mën ci gis suñu bop na ku ci nekk ci ñun respecté ku ci nekk lan moy droit am ak lan moy obligation pour man loolu lu am solo la waaw démo ñaari si ñaari fan lañ koy jàngé fan bi ñëk moy mun nañ ne démocratie la bi nga xamantene mu ngi ndax té bo gisé ku wax sa kàddu ñu tejj la wala nga wax sa kàddu nga bëgg génn wax sa kàddu sax ñu ray la ndax gis nañ fi ay mor yu am solo ya ay perte humaine yu am solo manam ay nit yi nga xam ñak nañ seen bakkan yu bari yu bari ci genn wax li ñu doon yek wala genn manifester li nga xamantene d'accorduñ ci tay ji nak jii nag ñooñu bu fekke dañuy nekk ci dekk bo xamne mënu ñu wax seen xalaat ba mënu ñu jëmmal seen xalaat ba paré police topp len ngir aar ka yor seen kaaraange ci walu wax sa xalaat ak genné lu la metti parce que lu gëna metti moy nekk moy am lu la metti té mënoo ko wax parce que nit bo mënu wax lu la metti rek day créer benn bo boule te bu boule bi bu yàggee bomb humaine lay nekk te loolu baaxul ci société léegi nag loolu noonu tax na ba beneen côté bi tax na ba ñu ne suñu démocratie par exemple mu ngi suux mais mu amaat beneen question beneen question bi am mooy question bi nga xamante ne tey suñu dëkk yi boo ko comparer ak yeneen dëkku Afrique yi suñu démocratie mu ngi avancer si ban côté mooy tey jii foo dem am nay activiste yu engagé wu ne ah ñun de ñu ngi wax ci li ñu ngi wax ci li dinañ kasi créer ay espace de rencontre espace de li espace de li pour que tay suñu dëkk bi démocratie bi mëna nekk li nga xamantene lu effectif la lu nit ñi mëna tek seen bët la di jëmmal donte amna ñu ñuy tej di leen xañ ñuy wax ak li ak li tay bo xolé suñu vote ni ñuy sécuriser suñu scrutin niñ ci sonné ni nit ñi ni ñuy démé ci bureau de vote di xol ndax voter nañ bu baax loolu yëpp ci démocratie bu avancé la mom tamit loolu aussi mooy le côté positif bi ñu am mooy côté bu baax bi mais fan bi safaan bi mooy leneen li ma leen wax par rapport rek ñin ñi ñuy rey ak pour wax seen avis ak yooyu. waaw loolu euh, ñàkk bakkan moom mu dee bu mala sax doonul lu baax ndaxte ñàkk bakkan ñàkk bakkan amul dañu ne ci ci ci diine boo faatee benn nit faat nga bi amul kenn ku ñaan yàlla sa rak sa noon sax génn ñu ko si xeex. ndaxte boo xoolee nit ku nekk si ñun bu fekkee benn sénégalais lañu rey ñun ñëpp am nañ sénégalais si suñuy kayit donc dafa mel ni ñun ñëpp la ñu reyandoo parce que xëy na li mu doon kaas ñun ñëpp moom la ñu bëggoon kaas waaye moom moo ñu mënoon représenté foofu noonu ba ñun ñu dóor ko bal donc dee na pour cause bu noble loolu nag c'est très déplorable nekk na loo xam ne ne rafetul nit ñi ñaawlu nañ ko lool si dëkk boo xam ne demoon na ba nekk exemple par exemple démocratie kii nii lañ ñii nii lañ ciy xool ndax ñoom ñun am na dëkk yoo xam ne sax dañuy copier suñuy loi di ko yóbbu seeni i di ko yóbbu seeni dëkk donc nag bu amee affaire yu mel noonu dañ dañ koy ñaawlu vraiment di gis te luy delloo ginnaaw démocratie la si suñuy réew